di nuyu ni ñu seetaan ñëpp internet ñëpp waaw di félicité di félicité suñu adversaire u tey donc euh, ay adversaire lañu woon mais bu jeexee gis nga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc euh, tey jii ku si mel ni armée ñoom Alioune Sèye Junior war nañ fi exemple bu naaj quoi vraiment donc euh, lu kii wax rek ni ñu fexe lu ñu leen wan ba ñu ñemee ñëw ëllëg si biir Tëngéej ñoom tamit wan nañ ñu lu ko raw quoi franchement donc euh, di rafetlu initiative bi aussi di la féliciter yaag ñi nga àndal yëpp ñoom Alioune Seye ak ñoo ñëpp ñuy créer initiative bi donc vraiment lu rafet la donc day boole waaw génn nañ ci tournoi bi nag mais ñu ngi lay ñaanal tournoi bi yàlla na yegg si jàmm. non génn leen parce que final bi yéen ñëpp équipe yëpp ay ñëw. très bien waaw di ngeen gis présence Tëngéej te final bi aussi dinañ ñëw jëmmal ko incha allah waaw di jaajëfal yi ko xool parce que match bee passé dafa dugal dafa dugal. Euh, kii dugal Ronald Ronaldinho. ba pare mooy suñu capitaine gisoo moom tey moom moo war a nekk capitaine. moom mooy capitaine voilà tey suba la ma woo ne ma dafa xëy yaram bi diis mënul ñëw. donc gars ñoo xoo ñoo xoo doomu daa nga xoo mais nag euh, damay remercier suñu grand Lamine Diop. Ah. moo ñu defaral mayo yi addiyee ñu si kaw ba suuf ah. waaw moom dafa bëgg nekk maire Tëngéej ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may maire vraiment jàppale nañu te gis nañ taxawaay moo ñu luweel kaar may ñu ay mayo si kaw ba suuf waaw ba pare jox ñu lu ñu mitanwe jëndal ñu ay affaire jox ñu ko donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant ñëpp ñu si jàpp di sant suñu grand yi ñëwul ku si mel ni doomu dango a neex ñoom ñëpp donc suñu xelam si ñoom donc Mbër maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay yaa booy. Euh, nan nga gisee initiative bi. waaw initiative bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax parce que tamit. Euh, ak suñu course limousine. lii lii boole mooy course bi ñëwul tey. lii lii boole la quoi. non ñoom day xaar non lii lii boole la quoi parce que tamit ni nga gisee nii lamb lépp ñëpp benn lañ. ay ñu so ñu sommes ay mag lañ parce que xool tey armé mi nga dëkk yëmbal maa ngi dëkk tëngay góor gi ñaam nga dëkk tëngay mais gis nga tey xoolal dara feeñu la mooy war ne carrément mbër yëpp ay mbokk lañ te mbër yëpp jàmm la yénante lii moom xaw ma kan moo initié lii quoi mais initié na lu graaw quoi ah fat ah. laal yoon jàmbaar nga barke Sëriñ Baba Mbacke yàlla yàlla defal jàmm parce que lii dafa garaaw

Alioune Seye non non Alioune Seye man moom combat la eh, daa mbër bu ñu boole daa mbër bu ñu boole Petit daa mbër bu ñu boole Petit Niang ak Alioune Seye ngeen ñëw ñu bëre ba Petit Baye Fall barke Serigne Ba Mbaga dix combat la am dix combat la am mais lii est-ce que dina neex tamit ndax gars yi da ngay kii est-ce que dina neex tamit non ba neex daa neex barke ak Alioune ah. si bëgg dama jël di nuyu waa Kéwel gi di nuyu waa SBT di nuyu assistance bi fi teew yëpp waaw di sant yàlla bu baax di sant yàlla ci ndam lim ñu may tey waaw xeebuñu ko waa di gën a ñaaxaat suma gars yi rek collectif gi ñu gën a ñu. yaa wala boo wax dañ lay bàyyi nga kii bàyyi nga non non defal naa non di gën a wax suñu collectif bi ñu gën a waat boole xol yi doon benn te xam ni li ci kanam mooy gën a metti yaakaar naa demi final final yàlla nañ yàlla may ñu jël final bi di encourager tamit suñu adversaires yi ñu loon tey muy waat 100 pour cent Tëngéej vraiment football nañ match bu neex amul xuloo amul xeex amul lu dul jàmm salaam waaw ñu ñaan yàlla nag lii mu doon ay édition édition waaw te lii maanaam geste bu rafet la quoi. kon initiative bi mbëri gis waaw gis nañ suñ bopp bu baax ndax ñun même bu dul tournoi bi dañoo préféré ñun dañu préféré ñun collectif bi ñun ñii di fubal nii ñoo mës a nekk benn équipe di fubal ñun du tournoi bi moo tax moo ñu boolee fubal ñun chaque ivernal lii la ñu fooyee fubalantu waaw yàlla daa dogal nag affaire bi ñëw ñu dolli ko si rek mais ñun collective bi nii lañ mës a àndee waaw ñu ñaan yàlla yàlla nañ yàlla musal si cat ak seytaane armée ci lu nekk. waa armée maa ngi ci li ma nekkoon rek samay entraînement samay wàccaay waaw. sa ko ak ambulance parce que ñu bari dañ ne armée li tax mu bëreeg ambulance daan ko jëlaat ko armée day daw adversaire yi waaye da ngaa amul koo bëree moo tax nga jëlaat ambulance. non non làmb làmb la rek euh, vraiment man taamuma kenn promoteur moo ma ko proposé bëre woon nañ 2017 yàlla may ma ndam si kawam su ma ko proposé. damay jël rek. mais est que revanche teelul est que amoo woon ñeneen ñoo waroon a bëree ku dul ambulance. mais jox ma keneen ku may bëre amul làmb ji moo xaw a saturé benn côté mbër yaay fi mais ñi fi nekk dañoo am combat xanaa nag doo toog di xaar ñi am komba bëre soit tamit lenn moo fi am da ngay maye ji sans say rak ambulance suñ bërewaatee yoon la ñu bëree ndax donte que daan naa ko mais arbitre gisul par décision euh, par recours lañ ma joxee victoire yoon la ñu war a bërewaat mu leer nañ ah. Mmh. armée ngeen bëree yéen ñaar combat bi yàggul yàgg na parce que Covid bi moom moo taxoon léegi nga jëlaat combat boobu est-ce que armée tey mën na ñoo promettre que combat bee ak bii dina am différence. waaw combat bi différence bi de xam naa moom euh, différence bi mooy dina metti trop par rapport armée bu doon préparer combat ak nii bokkul. lu ma yoroon yëpp def naa ko si combat bi. aw ma benn soutenir nag. benn aw ma benn benn laa la wax. maa ngi dem ak sama ngor nag maa ngi góorgóorlu lu ma mën naa ngi koy def mais amul kenn ku mën a taxaw soutenir ma ci combat bi te combat bi li ci des matatul deux mois mais yàlla baax na yàlla bëri na sutura yàlla na ma yàlla suturaal ñi ma war a gis ñëpp maa ngi leen di gis mais amaana nag gars yi ñoo si mën a gul jàpp xam naa nag dañuy xaar dernier virage mais mbër préparation la soxla ku ko jàppale paaka bisu combat loolu nga ko jàppale amul ko benn njariñ préparé ci xel mu sell préparé def ni say morom ñëw indi ndam man su ma ndam ndamu waa yëmbal la su ma gàcce gàcce waa yëmbal yëpp la tamit maa ngi wane fulla ak fayda mais jàppale bi des na trop. jàppale des na ci ban côté ci autorité yi wala yow ñi nga doon andal nga gisatul wala. non non man ñi may àndal ba léegi maa ngi leen di gis ah. waaw jàppale boo ko déggee tey. préparation man mënoo deux ans ngay préparer benn combat bu nga xam ne apporter lu la dara nga jëlaat comme benn combat euh, continuer jël beneen combat di préparer fu ma jëlee moyen bi may préparer man xëyuma wàccuma entraînement laa am ah, bu demee nii nag waaw ñu ngi sant yàlla mais amul kenn ku mun a taxaw ku nga xam ni mu ngi soutenir armée ci jafe-jafe yi mu nekk mais maay góorgóorlu nag ak suma ngor yàlla mi maye am naa yaakaar ak yaqiin ne dina ma may promoteur bi euh, combat bi kañ la ak tamit promoteur bi lan la la wax. waaw wax nañ ma mais comme régulariser guñ ko dama doon xaar rek waaw wax nañ ma date le 26 euh, jan euh, décembre le 26 décembre. waaw uh-huh. ah, may ñaan yàlla rek comme ñëw na ba pare. Uh-huh. yàlla suturaal ma si. promoteur bi waxul da leen doole xaalis wala. non ñun ay doole xaalis yooyu moom see <laughs> seekuñu ko moom waxu loolu waxante wuñ ko. Uh-huh. waaw ndax man. bul fàtte ne début Covid bi avant Covid bi man fëgale laa waroon bëreel. combat boobu dafa yàqu. combat bi bu ma ko jëlaatee avant tabaski laa ko jël. mbër bi da ko joxoon avance am promoteur naa ko avance mu ngi wër di wax rek. dégg na waaw mu ngi wër di wax rek. nee na man aw oh, ma carrière rek nii naa mais man gàcce ngalaama 2011 laa dugg ci làmb 12 combats laa def ñaari yoon laa mës a dégg muñal na génnee samay morom kan moo ma ëpp avenir benn moom moo fiy tëgg làmb. ñëw ba stade bi fayul mbër yi fayul stade bi moom na bàyyi yi muy def gis nga xasante bu xamal li ngay wax rek mais bul xam li lay tontu seul promoteur bu nga xam ne moom moo fi yore mbër xaalis moom la yore lu ma ko fukki dërëm moom moo ma gën a biimel sama combat caat moo ma ko def lu mel noonu ba ma ñàkk combat boobu mu ñaar répété waat ko ci combat fa euh, moom moo ko njëkk a tëgg ah. jox caat cinq cent mille man mu may tey ëllëg ba combat bi ba ma pare pare sama xaalis mujj ko tëgg mujj gars yi comme ni Nicolas yi joxoon na ma avance am fëgal euh, kee dumbul dumbul dem toog ñu joxaat ma ba xam nga ci ay jafe-jafe yoo xam mais sant yàlla rek. Uh-huh. sant yàlla. yéen ñaar kan si Prince lu ñuy jotee ban ban man bu xanaa man maa ko réew police moom moo ma préparé loolu li mu wax defu si dara yorul dërëm day tey na tëj làmmiñam bi moom promoteur yëpp moo ci gën a niil nee na man au ma avenir mais moom moo gën a niil ci promoteur na xoolaat bu baax taxawaayam. nga war a bëre te nee nga armée euh, diggante ma ak waa benn baraak mbooloo armée ba tey mi ngi benn baraak waaw maa ngi suma écurie ak suma staff ñëpp ñuy préparé maa ngi fa di ñaanal suma booy fa jot am combat ku mel ni teg soog instant yi combat am jege na yàlla na ko yàlla may ndam man doomu benn baraak laa fa laa juddoo fa laa yaroo fa takkee ngeem te falaa ñaan yàlla des ba ba may dee incha allah rabbi wala ba ba may bàyyi làmb Zé kooku maa ngi moom du ay relation kooku suma rakk la sama rakk la ñu ñu ñu ñu déggoo ci lépp man moom Bulldozer ak ñeneen mafia Talla Diop bi sax laay wax ndax nit ñi dañoo xamul rek Zé la ñuy gëj a gis ngay àndal mais mafia bi ñi ci nekk bëri na Alioune Seye mii duñ tàqalikoo fajar mu gis sama appel ñooy ànd lépp ñun nii benn. combat dama koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam mu sedd guy te am nañ ci yaqin. ndaw la te nangu naa liggéey trop. waaw jox na ko cër trop. yàlla na ko yàlla sutural yàlla moo am sutura yàlla na ko suturaal may ko ndam si ko fils de Balla ndax combat le 24 la ma siy woo nag képp kuy bëggee armée rek. ak fu waay mën a nekk ñi mën a ñaan nañ ñaan ñi mën a ñëw nañ ñëw. général yàlla may ko ndam ci kaw Fils de bala combat bi yàgg na metti na ndax lépp ñoo ko ànd lépp ñoo ko ànd xam naa lépp fi mu toll encore une fois ñi ko mën a soutenir nañ ko jàppale nañ ko jàppale làmb metti na te préparation bi metti na ñoo bokk lu ñuy dund merci jërëjëf. Bulldozer maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi uh-huh. lay nuyu baax Fatma. maa initiative bi. waaw initiative bi rafet na temps yëpp maa ngi siy wax wax dëgg yàlla. lii dafa nice quoi parce que sport nga ñuy def donte ñun làmb la ñuy def làmb ku ne xam na ne sport sport la boo xamante ni nekkul sport collectif sport individuel la yaa ngi dégg mais sport bépp sport bu mënti doon muy mu nekk individuel bi collectif bi yëpp sport bu boogewul rek war a tax bi quoi te yaakaar naa ne ñu ñëpp ay Sénégalais lañ yaa ngi dégg ay doomu dëkk bi lañ xam nga war nañoo mën a nekk benn waaw làmb nag làmb la xam nga mooy loolu mais sport sport la di rafetlu bu baax baax initiative que dafa neex football dafa mbëri dañ ciy gis ñu mën a fubal vraiment wax dëgg yàlla. général bu Malika fils de Balla yow yaa ngi général yéen a bokk écurie yéen a ànd. Hmm. mais combat boobu moom mu bëri ne que de Balla man mii nga duma morom te man général sama morom. barki alxuraan fils de man mii nii rek man ak moom barki yàlla bu duggoon bu tëjoon si nekk ma jooy ko barki barki alxuraan laa la wax bu ñu man ak moom barki yàlla dóor la dóor du ma moroom moom waxuma nga ak Sénégal Sénégal day jàll si kawam yàlla loolu kenn mënu si dara incha yaa ngi dégg Sénégal ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla may ko ndam saa mi ngi si loxo yu wóor mi ngi entraîné fonk na ay mbokkam respecté na ay mbokkam yaa ngi dégg bàyyiwul kenn di woo waa yëpp ak waa Yëmbal waa département Kër Massar yëpp ñu ngi leen woo nañ ko ñëw jàppale yaa ngi dégg doomu dëkk bi nga nañ ko ñëw jàppale vraiment Sénégal bu Malika nañ ko jàppale bu baax a baax mbër champion te dafa am avenir mhm. waaw yaa ci tey yaa ci génnee yaa yi maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi maa lay fay Fatma. Euh. naa ban sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur. di gërëm waa benn baraag gi ñuy yeewoo yëpp. di gërëm képp ki nga xamante ni yaa ngi si cent pour cent bi. di bëggee ñi nga xam ñooy supporters yi tey. Euh, parce que lii initiative bu rafet la quoi. ndax fii man Dakar laay liggéeyee. Esat. fa laay liggéey laa. di bëggee coréñe yëpp bàyyiwuma kenn parce que tey jii tournoi bi ku ma romb mi naan dinañu bëri tournoi dañuy fubal tournoi dañuy fubal tournoi te waral quoi nga nekk jigéen boo xam jigéen mën góor nga ñu lay ñaanal nga yeggali rek ndax yeggali moo am solo parce que naes na daal ñun ñëpp ñoo bokk nday ba comme ni la ko armée waxee sànq ñun sans tournoi bi chaque dimanche dañuy booloof di fubal ah. kon bu tournoi bi ñëwee day gën a yomb quoi ah. te incha allah rabi final bi leen bëgg jël te am nañ si yaqin ne dañ koy jël incha allah. Uh-huh. yow ci loo waaw maa ngi si ay waajaay. Uh-huh. maa ngi si ay waajaay amoon na combat ci diggante Siteu Papa Sow maa waroon bëree social bi. Uh-huh. ñu dem ba tëbëg si bi waaye jub si ñun sama adversaire daa feebar. léegi après combat bi noonu lañ ko ñaakee ñu joxaat keneen combat bi yeneen ñaar ko waaw ma toog di xaar rek. Mm-hmm. kontaan ok ñoo far far